bis sot nga gis liggéey koo xam ne daal la maa ngi sant di la gërëm yow naa def sama sëriñ mm-hmm. ba nga ma joxee nangam ba tey ci laa am liggéey mm-hmm. kaaw kuñ dàq koo xam ne tey jii naroon nañ ko dàq ci place am mm-hmm. nu mu defoon daal détourné SDV ci port ku ne xam na ko dañ ko tuumaal problème mu 94 millions gannaaw ci yàlla ndax yàlla moo yor ndimbal lépp ci moom la ñuy taw ko ñëw ko en saa su dëkk suñu jëmi ji jaarawaay yi ñu jaar moo tax ba dàqul ko te mm-hmm. yi dañoo yemal. xam nga soxla million daa am. Mm-hmm. soxla deux cent am soxla téeméer am. Mm-hmm. soxla fukki junni am. soxla cent mille am. soxla deux cent mille am. noonu la noonu la mbir yi mel. donc maanaam yow su ma la déggee ci wàllu ñaan yàlla tey joxe lu rëy am lu rëy mu ngoog. Sëriñ ba nañu gaaña fi nekkoon jàpp la yaa Sénégal TV amati nañu mbette ak kontaante tey euh, dajewaat ak yéen comme ni ñu koy defee saa su ne tey nag ñu ngi fii cité Apexi 2 euh, ginnaaw hôtel euh, Via Via di dalal nag ndaanaan bu mag bu xam-xamam màcc si wàllum faj cosaan ak aada muy Serigne Souhaïbou Mané sëñ bi nuyu naa la. fay naa la alhamdulilah. waaw mu bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi. alhamdulilah. alhamdulilah alladhi yusalli ala nabi Mustafa musalli. salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiya sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi dawi ridwani wa tamkin وجل كلامي راشدا ومنشدا وفكرتي نوير وقلب ارشدا لانه بيني سمت يلا جولي جون تي صلى الله عليه وسلم ني ني دوك العالم السامي جي وير مصلي لي خمني تي لاني دي لين ديار بني يون دي دوكل كوم ني كو باخو واخي سونو خليفه الرحمن شيخ سيدي مختار يلا يلا يغن كو في لول تي مون دغور اك مبولم نيبوتو شيخنا شيخ عبد القديم جيب اك شيخ سيد نيب تي ني جبير ak mboolem kilifa turuqu Sénégal yëpp yàlla yàlla doole jàmm ci ñëpp yaay rasulullah merci jërëjëf sëñ bi voilà donc euh, mbokku internautes yi tey nag dafa am benn thème bu am solo bu ñu fas yéene waxtaanee tey maanaam euh, wàllum gutum liggéey ak yëngu yi am ci biir sëy yi sëñ bi euh, par rapport ak premier thème bi ma jot a wax mooy wutum liggéey ñëpp xam nañ dëkk bi dafa jafe léegi. et que pratiquement chômage bi dafa nekk si benn taux bu élevé ba nga xamante ne que euh, waxuma la ndaw ñi sax waaye mag ñi sax pour ñu am liggéey problème la. Hmm. Euh, ndax yow yàlla may na la côté boobu noonu aussi pour nga mun di saafaral kii boobu moom phénomène boobu noonu. waaw alhamdulilah ala kulli leen ñu ngi sant yàlla bu baax ci question bi nga ñu laaj ni léegi yàlla dogal na am na ci xaas am na ci jagle ci wàllu. kuy wut liggéey moo xam nga nekk fii moo xam nga nekk bitim réew képp koo xam ne daal jëflante nañu ci wàllu woowu bu soobee la boo ñëwee yàlla dina dimbali incha allah ci jaarwaay yi ñu ci war a jar wut li am liggéey nag doon na mbir boo xam ne lu lëmbee dëkk bi la ñii léeg-léeg nga gis ñu ne la crise moo am yooyu yëpp mën naa nekk ci lu mën a nekk ci lu mën a nekk la mm. waaye itam nit dina am gàllankoor ci jëmmi jëmmam ji ba du mën a am liggéey nga gis koo xam ne dafa bëri ay yàqu-yàqu daanaka lu mu dugg mu yàqu daan na liggéey mu ci nga gis liggéeyatul wala nekkoon na bitim réew mu fay liggéey am sutura am fa ak léppam nga jég-jég gis mu jég-jég lépp kale as gi mu dencoon mu koy roppet di ko roppet wala boog mu koy dugal ci ay mbir mhm. pour mu mën ko jural dara mhm. lépp daal di yàqu nga xam ne fa mu liggéey fa mu doon liggéey di fa tibbee ngir mën denc mhm. bloqué na xëy nañ ko dàq ci place ba te xamul lan moo waral ñu dàq jëlee ko fa dégg nga waaye nga gis koo xam ne daa ne ci place ba rek di fa liggéey jékki-jékki am fa jote boo xam ne du ko tay du taye fa mu def fa ma masal sàcc fa dara mhm. ñu dàq ko mhm. wala mu jël fa kenn ñu licencié ko mhm. yooyu ay gàllankoor la yu doon ci net wa illaa koo xam ne koo liggéey ba liggéey bi ñu ko liggéey mënta dem fenn ñu jël da nga gis xam ne fu mu déposé kenn du ko jël da gis koo xam ne euh, jàng yi mu war a li mu war a jàng fa mu war a jaar gi yëpp jaar na fa diplôme yi mu yëpp am na ko waaye mënta am liggéey fépp fu mu déposé ñu ko jël loolu day doon ko ci nit léeg nit umu ci nit dana teju itam ba waral loolu danañ ko liggey itam ba war loolu hmm. ok ok donc euh, ni ma la déggee ngay wax aussi sëñ bi ba melni yow domaine bobu non sa domaine la da ko maîtriser parce que euh, contexte bu nek ça dit nit aussi situation bo ci wara meuna nek rek hmm. euh, rek faram-fàcce nga ko ça hmm. dit euh, da nga da nga da nga indexer ki bi wala nga manam ça dit da nga

incapacité état bi. yow li nga xamante ne que tey jii crise boo xamante ne phénomène bu kii monde bi yëpp. ak loo xamante ne que état ko faj yow noo koy mën a fajee. waaw ala kulli aal ñun mhm. xam ndax kii. Mhm. li ko tee liggéey liggéey moo ci moom. Mhm. wala moo ko dem. wala xam ko xam ne cat da ko jàpp cat day dugg ci base boobu. ba nga xamee ne loolu daal du dox. waaw crise la crise mondiale nag gisewul dara ak cat bi waaw moom naa dama xam nga dama cité ay exemple yi nga xam ne mooy cause yi nga xam ne moo mën a joxe loolu waaw mhm. da ngay gis koo xam ne euh, euh, sànq dégg maa ngi naan la mhm. liggéey ñàkk liggéey li koy waral mhm. cause bi ci la ba tey maanaam crise mondiale yaa ngi dégg wala nguur gi itam waaw yow kay nekk yu bëri mais suñu pàcc nga xam ne ñun fa la ñu féete euh, moom laa ñëw wax ci ne lii ak lii mooy doon gàllankoor hmm. waaye dama joxe en général rek hmm. wane ne lii ak lii dana a tamit ñàkk xëy ok waaw hmm. loolu la voilà donc léegi yow euh, par rapport ak loolu yow naka ngay procéder waa mën naa bu fekkee ni koo xam ne dama la xool gis ne nit ki da am gàllankoor sa bopp mooy soit nga um wala nga tëju wala ñu liggéey la yaa ngi wala cat jàpp la mën naa xam ne lii moo waral cause moo causé sa ñàkk liggéey. parce que euh, lu jugul nit jàng ba am ay diplôme am fu mu ko war a amee. Mhm. mu déposé ko ci am société. société bi gis na kii qualité yi ñu soxla wala boog lañ soxla ci kii pour poste bi mu war ko mën a am. Mhm. war na ko mën a am lu tey ñu ñàkk la jël. Mhm. loolu xam nga lu jugul. ci yoon lañ laa war a jël. waaye gàllankoor nag bu ko defee nag baatin day ñëw foofu. loo xam ne nag doon hasard doon loo xam ne lu ñu mën a exposé la rek. nii wane ne. Euh, lii moo ko waral ndax tubaab bi tey jii boo ko laaj boo ko waxoon. Mm-hmm. du ko mën a gëm. du ko mën a am na tubaab boo xam ne mënul gëm ne. Mm-hmm. lii euh, am naa samay diplôme dem naa jëluñ ma. Mm-hmm. gëm ne dafay wala yooyu wala dañ ko liggéey. ki nga xam ne xam nañ leen mu baatin yéen. xam te yàlla may ko moom mooy mën a xam loolu. ok léegi. Euh, si cas yooyu noonu est-ce que yow am na si yoo xamante ne que jot nga ko réglé. parce que ah. bëri na aussi quand même ah, tey jii ay ay ay borom xam-xam yu mel bom bon c'est-à-dire ñi nga xamante ne que dañuy ne ñoom am nañu xam-xam bi di di di woote loolu non comme quoi que ni loolu ñun mun nañ ko faj mun nañ ko régler mais est ce que yow réellement euh, mun nga ñu wax yan cas ak yan situation nga fekk nit aussi ba génnee ko si si depuis ba nga tàmbalee yow. am ñun bi ñu tàmbalee léegi xam naa bu ñu koy wax daanaka dana émission mën naa jeex te du fi xaj ñun ba ba asas ñun tubaab di ko waxee. Mm-hmm. te dañ tàmbalee asalaam ndax dañoo juddoo ci këru asalaam. Mm-hmm. moom lañ xam moom lañ ñu nàmpatal mm. moo tax jaarwaay yi yemuñ ci loolu jàng nañ fu nekk jaar nañ fa itam mm. am na ay kilifa yoo xam ne yàgg nañoo jëflante ak ñoom mm. loolu moo ñu dooleel ba jëm bi tey ñu nekk ji sëñ bi ba léegi daal ba léegi daal waxu ko mu lu leer quoi dama ne la nga expliquer ma ay cas yu concret yu nga xamante ne que jot nga ko quand même euh, moom naa la xam nga du jeex xam nga tey jii nee naa la les ambassades. limal ma rek jox ma quelques exemple xam nga lim. man dama ko baaxoon man dama baaxoon di lim ay naan diw ñaanal laa ko foofu. day dem ba dugg ci loo xam ne. xam na gaal boobu bu ñu ko jee xaw ma sama nature la sama sama bind la. waaye daal ñi may sarante xam ma xam nañ te ma yàgg jëflante ak ñoom ci wàll woowu. yàgg nañoo gis seen résultat ndax bis bu set sekk mii xam nañ ci dara ne ci kër gi. di sot nga gis ku ma ci wàllu liggéey koo xam ne naan la maa ngi lay sant di la gërëm ñëw naa def sama sëriñ mm-hmm. ba nga ma joxee nangam ba tey ci laa am liggéey mm-hmm. yaa ngi dégg du jeex du xaj du jeex mm-hmm. ndax loo xam ne ba nga tàmbalee ba tey nga bëgg a lim ni ñaanal naa diw ñaanal naa kon non ñu nga lim yëpp mais quand même xam nga ñàkkul par exemple bëri nañ ay ay cas yu critique kaaw hmm? kuñ dàq koo xam ne tey jii naroon nañ ko dàq ci place am hmm. nu mu defoon daa détourné SDV ci port ku ne xam na ko hmm. dañ ko tuumaal problème mu 94 millions. Mm-hmm. gannaaw ci yàlla. ndax mm-hmm. yàlla moo yor ndimbal. Mm-hmm. lépp ci moom la ñuy taw ko ñoom ko en ji. jaarawaay yi jaar moo tax. ba dàquñ ko te nag ko dañ koy dàq. dégg nga. léegi sëñ bi. waaw am nañ koo xam ne tey jii nekk na ci Angleterre. mu war ko euh, kii nuñ ko waxee sax saisir. ay bagages am biir mi nga am. gannaaw ci yàlla ci nu hmm. ñu ñëwtee ñu saisir hmm. ak yeneen yeneen du jeex waaw ok voilà donc mbokku internautes yi ma leen di fàttali ne tey jii ñu ngi dalal euh, ndaanaan bu mag sëñ bu Mané fii ci APEXI 2 euh, ginnaaw le Via Via ku ko bëgg a contacter nag mun nga woote ci 77 152 66 03 76 926 10 16 10 926 16 10 70 209 92 93 voilà donc euh, sëñ bi n'est-ce pas moom loolu mooy seen numéro yi hein. mm. voilà euh légui mo bëggona xam itamit euh, ci ba tey hein, si côté kii quoi nous mu tuddati euh, côté premier point bi bi ñu nekk di débattre ni mo bëggona xam euh des fois di ngeen am ay cas yu nga xamante ne da leen di leer ne ne que ku ñu bëgg a wala ku ñu bëgg a ku ñu tuumaal moom moo def foot bi. Mm. mais ngeen nar ko ci sauver. Mm. bëri na xam nga mu ñëw wut si ndimbal ci yeen légui ngeen nar ko jàppale si. si si ñaawteef boobu noonu mu jot a def. Hmm. mais est ce que des fois seen xel dina dem seen diggante ak yàlla. ngeen xalaat aussi que ne nit kii dafa tooñ ñu bugg ko ci teg ay daan ngeen ñëw sobe ko ci. waaw xam nga xam nga ndogal moom ndogal yàlla yi la. Hmm. xam nga jaam moom sabab rek la mën. Hmm. lii lii xew yàlla mooy aji dogal bi moo koy dogal. di nga gis nit mu baax lool. gën ñëpp ci ni buñ ko mën a waxee. ñëpp mën a seere ci moom mbaax amul benn tâche nga xëy rek mu def loo xam du coobareem jékki-jékki jël xaalis yu jàmbur ci loolu coobareem wa mu yor xaalis yu jàmbur boo ko ko dénk wala loo xam mu jékki xaalis tasaaroo ci loxoom te xamul fan la jaar loolu du coobareem. loolu du coobareem tout comme aussi. yaa ngi ne xam nga voilà ba tey maa ngi ñëw. Mm-hmm. da ngay nag koo xam ne. Mm-hmm. situation da koy jàpp. Mm-hmm. ba mu jël lu mu war a jël. te bu sañoon wala bu mënoon mm-hmm. du jël mm-hmm. nga xam ne noonu la noonu la demee daal mm-hmm. maanaam phénomène phénomène la boo xam ne phénomène bu bu wér-wér la boo xam ne bu dëggu la am ci société bi comme ñun dañoo doon ñoo xam ne nitu diine lañ mënuñoo weesu mënuñ ñàkk am benn ba ñeent comme li ko yonent bi sallallahu alayhi kon rupture yooyu dafay am ci kër yi te am am bi tamit demeewul doon ba ku ne mën a lijjanti soxnaam ku ci nekk sa soxna bu doon ku ci nekk sa soxna tey jii dafa nekk ci këru boppam xëy na mën naa wàññeeku ba tey loolu taxul nga mucc ci loolu li ci dimbali nit dëgg naa mooy mu fàggandiku nit day am ay njabootam mooy sa soxna sa yëpp nga fagaru bu dee góor gi nga fagaru sa kër jàmm di fa dox am na gàlla yu mag yoo xam ne koy def nga suul sa kër jàmm rek a fi am benn coow dafa am benn problème dafa am yow bu dee jigéen gi uh-huh. man nga fagalu sa bop ba nga xamne sa diggante sa borom kër kenn du ci dugg man kenn du ci xaj. surtout falaa bëggoon pour yàgg hmm. hmm. fala bu bëggoon fala bu hmm. waaw wa parce que seetlu nañu déjà pratiquement li ëpp aussi ci cause divorce yi day fekk peut-être que euh, mbokk jëkkeer ji wala mbokk jabar yi. ñooy ñëw dugg ci sëy ah, bi ñëw pénétrer ci mbir mi voilà pénétrer ci mbir mi wala ko di ko gor ki aussi du yem jékki jëk rek bàyyi ko ki dem nek ci lu ko neex. waaw vice versa. waaw xoolee. xam nga da ngay gis bu dee jëkkër ji. Mm-hmm. nekk bitim réew góor ñi ci bëri daanaka tooguñ na ma yàlla bal mm-hmm. buñ da ngay fay gis sax ñoo xam ne dañ fay nekk seen soxna mm-hmm. waaye seen soxna yi dem di taxawaalu ànd ak tubaab bi foofu wala dem am nekkaale wala yu kenn xamul yoo xam ne dañ ko fay dund wa illaa seen soxna nekk fi ñu di foofu wa illaa tamit nga gis ñoo xam ne seen jëkkër day nekk fële ñoom ñu nekk fii ñoom ñuy taxawal ñoom seen jëm bopp léegi bu fekkee yooyu dafay am ku ne di ko déggante wala sa jëkkër ay rakkam ñoo di ko di gis li ngay dund fii naan sa jabat naan foog problème am wala ngeen dëkk yi ngeen dëkk yaak sa jëkkër bu sa jëkkër benn ne benn nga ne ko fukk mais est-ce que loolu mën nga ko saafara bu baax a baax hmm. bu dee ci jigéen mën nañu defal loo xam ne hmm. sa diggante sa jëkkër kenn du ci xaj seen diggante day doon nepp hmm. loo ko mën a góor nga wala góor goo xam tey ci sa jabar loo ko wax say waaw rek ci la uyu du xool feneen du taxaw feneen mm-hmm. loo xam ne am na loo ne boo ko defee sa sa sa euh, maanaam góor bu ko defee euh, déwéeku sàkkaram mm-hmm. boo seeg sa jëkkër sa soxna mm-hmm. ku keneen ku beneen góor ci jëmmi ci àdduna mënu ko ko tiim waaw ah, d'accord góor gu ko tiim day yomb tey am moo euh, na ci loo xam ne tey ji boo ko defalee sa soxna am nañu koy defee nga jam sa loxo dégg nga tay ko jëmee rajo boo ko defee sa soxna dee rek leen mën teqale dara mënu tey ngeen ngeen teqale ko tey du xool benn góor bu mooy yow yooyu dafa am yooyu nag dañuy bàyyi léegi maanaam jàppee ko ne if ordinaire rek comme jikkoy tubaab yi yooyu nag fii ak mu ngi am coow du ñàkk am ci kër yi te it goro yi léegi dama yàlla baal tamit na yàlla xam na lu ci bari ñoom ñoo tas sëy ak rakku jëkkër yeeg rakku jabar yi waaw léegi gis nañu beneen phénomène yi tamit xam naa mooy doon laaj bu mujj bi avant dernier laaj bi mm-hmm. parce que ñu ngi xëy waxtu baa ñu waaj a dab euh, gis nañ ñoo xamante ne que aussi dañuy ne par exemple bu ñu sëyee ku jigéen bi bu ñu xasee ba tàggatoog ñoom rek kooku mënatul du mën a ci am jëkkër waaw loolu dafa am loolu dafa am loolu secret mag la mm. yoo xam ne euh, mag ñi dañ ko daan liggéeyee loo xam ne buñ ko jëfandikoo mm-hmm. keneen ku dul ñoom

moom ci coobaree mu divorcé ak soxna si. Hmm. xanaa kay boo divorcé ak nit ki di nga ko bàyyi nag quand même mu am droit am beneen jëkkër. mais doo ko bàyyi noonu aussi mu dem. fekk xanaa doo dee nga tey jii. loolu mën nañ uh-huh. ko def mën nañ ko dindi. mën nañ ko def mën nañ ko dindi. li tax gis ñu ñu bëri di ko def mooy. Hmm. du ñuy bëgg. Hmm. seen soxna rëcc leen. waaw yaa ngi dégg. tey bu fekkee tamit waa ju baax nga am na jo li ci ëppoon suñu kilifa yu baaxee la doon. nga xam ne nit ku baax. sel jur ñu baax du bëgg tey ji mu yor njabootam euh, soxnaam mu jóge fii keneen koo xam ne tey ji tekkul dara bëgg ko yor bu njëkk lu mel noonu moo moo taxaw waaw ñu ko dara ak it ngaar su soxna bëgg ko mbëggeel koo xam ne doo bëgg mu rëcc la yaa ngi dégg te soxna yi tamit bëri na ci ñoo xam ne mel nañ noo xam ne maire ci jikko léegi bu fekkee ñu laa génne bi da nga am na ñoo xam ne ñu koy tëkku ne ko pour yow bu soobee yàlla pour pour man dootu la dal bëri na fi hmm. da ngay jigéen ñu bëri ñoo xam tey jii toog nañ tas bañ keroog bañ tasee seen sëy hmm. lañ gën a dégg alxayri hmm. li ko waral mooy secret yooyu moo ci nekk ñun nag am nañ secret yoo xam ne boo ko defee mooy dindi loolu waaw léegi señ bi parce que wax nga fi lu am solo yaakaar naa ne sénégalais yi lii dina leen intéressé trop yéen mbokk internautes yi nee naa leen ñëw la ngeen seet sëñ Souhaïbou Mané fii ci APEXI ginnaaw hôtel Via Via wala boo ko bëggee jot wooteel si 77 152 66 03 76 926 16 10 70 209 92 93 sëñ Soy euh, yow say mbir mbaa tàngul noonu mbaa kii sa loxo tàngul maanaam li ngay liggéey mbaa dafa cher wala. ah Abdoulaye dañ ne kéem li nga jëf rek nga am. li ngay jëf rek. moom nga am yàlla noo toll ci moom rek mu toll mu toll ko ci yow. maanaam. maanaam tey mm-hmm. yàlla kii la ko gën a jege. Mm-hmm. moo la gën a mën a jëriñ ci moom. Mm-hmm. tey njort ne kii kat am na jaar mën na faa jaar yàlla dégg. tey ya euh, euh, masal ma jox exemple. sëñ Tuba. li jëfal yàlla rek la ko yàlla fay tey ba kenn dootul gisati keneen ku mel ni sëñ Tuubaa ndax ximmaam ak fi mu toll ci moo tax mu egg foofu moo tax mu ba tey yaa ngi xam nga yaakaar aussi waaw mun naa yaakaar aussi moo fort xam nga ni tey mun na am soxla bu diis fekk poche am demeewul noonu soxla yi dañoo yemal xam nga soxla million daa am mhm. soxla deux cent am soxla téeméer am mhm. soxla fukki junni am soxla cent am mhm. soxla deux cent mille am noonu la noonu la mbir yi mel. donc maanaam yow su ma la déggee. ci wàllu ñaan yàlla tey joxe lu rëy am lu rëy. mu ngoog ah. yàlla daa am secret yoo xam tey jii dañoo jox ma 100000 francs mm-hmm. ko def. secret boo xam loo koy am boo koy liggéey mm-hmm. da nga liggéey yëpp toog une semaine di ko liggéey. Mm-hmm. wala loo xam lu ñuy bind la toog une semaine bind kooku di nga jël benn waaye ñëw rek jox la benn cent mille bu ñàkk fayda bi jël ko jox loolu pour lan. cent mille kat tuutiwul. te eh? jamono ji ñu toll nii. waaw cent mille ku am cent mille da ci liggéeyu cent mille fukki junni nga yem ci liggéeyu fukki junni <laughs> dégg nga maintenant ñëw dem ba kii dem mu ñaan na ñëw naan ma vingt mille laa man suñ bi du ma liggéey loolu am na waajur fu jógee ba gudóom mhm. ñëw ci man yaa ngi dégg sama ko lañ mën nañ gëm bàyyi fen mhm. ñu ñëw ne ma vingt mille laa man ko damay ñibbi man du ma liggéey loolu loolu du ma tàrral gudóom Casamance barke Seexu Xaadim loolu am na yaakaar loolu du ma tàrral parce que la kenn nag da ngay sas yaakaar xam nga problème mooy xam nga problème mooy lan mhm. nit ñi dafa bëri ñoo xam ne dañoo gore fu mu toll nii boo leen ne ah liggéey ñaari junni am na fi dañuy bañ tey ñi boo ñoon jox ma benn kër na am barkeelu ma ñëw yëkkati fàtte fàtte kese jox la te doonte fàtte chifaa'un eh, li kulli daa day faj bépp jàngoro doo ko gëm na nga naan kii joxuma dara duñ ko nam li ñuy bëgg mooy nga liggéey lu wér gëmuñ nga yëkkati benn kii rek jox leen eh, du ci xoloo du ma ci coow liggéey may ngi fi tege ku bëgg lu bari boo joxee lu bëri ñu ñu liggéey la suñu képp kàttan boo joxee lu tuuti tamit ñu xool yu tuuti rek jox la ku joxe comp ñu jox la comp yoon iya, lu bari voilà mbokku internet Sénégal TV euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm kii nag mooy sëñ Sowaay bu Mbacke euh, sëñ Sowaay bu Maane sëñ bi bari nga ci morom bi ci bari Sowaay bu Mbacke waaw ba tey mm-hmm. def ceeg sotti ci yar gi la voilà voilà donc euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw xanaa di leen gërëm yéen waa Sénégal TV mm-hmm. di leen ndoppil baax seen liggéey suñu diggante yéen gis nañ saa su nekk wax dëgg yàlla ñu nekk fekk ñu nekk fee nekk ngeen di jëflanteeg ñun saa su su nekk daanaka gis nga bi ngeen di ñëw léegi rek tàggu leen ma daanaka da ngeen dama jékki-jékki ne gis leen ngeen di jafe ma ne xanaa di sant daal yàlla yokkal leen seen maqaam foofu ngeen séntu egg rek yàlla eggal leen fi ci anam yu gën a di ñaanal beneen yoon Cheikh Sidi Mokhtar comme ni ko mbaax waxee yàlla yàlla yàggal ko fi loolu tamant ko wér njëwatu Seexul Xadim gépp ak Sénégal islam gépp yàlla na fi islam ball ba daj fi kàpp bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa